Nous avons am en tey nekk fi Tambacounda 10 octobre qui a été yi célébrer li célébrer wax journée mondiale santé mentale Nous nag ñu am Tamba mais nous avons ndax en nee na mbooloo mooy doole occasion la de nga profiter pour renforcer la communication la sensibilisation le plaidoyer mais surtout nous gën faire stigmatisation boddi bi ak exclusion bi vraiment gëna conscientiser les sénégalais ñu gëna bayyi xel ci malades mentaux yi te feebar la comme feebar yëpp waruñu leen boddi waruñu leen génne dañ am seen droit seen ak ak seen i yelleef war ko préserver mais également occasion la pour ñu euh, xamal askan wi ni ci fan yu néew incha allah rabbi ministère de la santé dina génn ay résultats ndax tey jii def nañu lu ñu wax étude de prévalence maanaam xayma pour xam dëgg dëgg dëgg naka la doole santé mentale nekk ci Sénégal ñaata lañ ci am deug deug deug deug deug deug mais surtout tak la tëddee ci biir région yi ci biir département ci biir commune yi loolu muy liggéey bu am solo ndax feebar boko bëgg xex deug deug deug deug deug dëgg nga xam dooleem